أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi siyaare mbokk taal yëpp ku nekk si tur ak santam di santaat yàlla ñu may ñu mën fee teewaat si jotaay bi si ak wér euh, di santaat euh, aussi ñi nga xamee ni am na ay jëriñ ay mbokk taal bi nga xam ne vraiment gëj na loolu gis ñu tey jotaay bi moo mën a permettre ñu gisaat loolu si nekk loo am xam ni taw la ak cant la si di sant si nga xam ni suñuy bàyyi yu fi nekk suñuy mag yu fi nekk eh, suñuy sëriñ yi fi nekk macha allah eh, suñu eh, sant ak suñu nuyoo sëñ bas mi nga xam ne nii teew na fi nekk loo xam ni tawfeex la bokk ak jotaay ak moom saa su ne bu nu bokkee jataay ak moom aussi ak njàngale bu bëri lañ si jëlee macha allah. moom euh, xam naa ne bu ñu gisaatee suñu toogaay nii andes euh, am dana am ñu bari ñoom ni jot nañu koo miit euh, muy lu nga xamee ne aussi si ndigal la lu nga xame ni jóge si Serigne Touba ñu tàmbalee ko si jamono Serigne Saliou gannaaw loolu tamit xam naa ni nekk na ndigal lu nga xamee ni Cheikh Mourtada nafa Allah barakaati yi daan ñu jox ndigal loolu muy maanaam Euh, ndigalu ànd booloo nekk benn ndigal loolu euh, mu nekk toujours ni ñu koy waxee lu nga xamee ni ay kàddu suñu borom la saa su ne bu ñëwee di ñu fàttali li nga xamee ni euh, moom mooy li nga xam ne moo ñu fi indi bàyyi ñu fi waaw indi ñu bàyyi xam naa ni mooy suñu objectif nekk suñu yitte yi nga moom moo nekk fii li nga xam ne moom moo tax ba suñu nekk maanaam si bitim réew mën a am ak jàppandi si loolu la daan sonn te lenn ñi ko njëkk mooy mën a fàtte mais kat jaamu yàlla moo ñu fecc waaw jaamu yàlla buñ ko waxee rek maanaam c'est un tout waaye ni liggéey ak sàkk xéwal ak lépp si la bokk waaye nag bu si nekk la am wàccuwaayam bu si nekk foo nga xam mën koo placé mu am ay priorité bi mu demee ba xool tamit xool mbooloo mi nga xamee ni fami ñu ngi fi bëgg a bari maanaam euh, euh, classe d'âge yi bari nañu tamit dafa am lu nga xamee ni moom la ñu wax ñu nekk si euh, mooy maanaam booloo boobu bokkoon na si booloo bu nga xamee ni mooy booloo wut ay bërëb yi nga xam ni nee nañ dañ fi jaamu yàlla mag ñi nee ñu xamal leen fii seen lislaam seeni farata xale yi ñu xamal leen fii maanaam lislaam loolu nag bi amee taalibe yi booloo nañu waxtaan ci seen xel xel yu rafet delluwaat laa ndigal maanaam sotti xalaat am nañu ko xam ne moom lañu tënk suñu ant macha allah boobu léegi def nay diir ñu nekk si ñu xool ni kët defe naa ni wax nañ ko fi ci jataay bu mel nii am na seen benn mbokk mu nga xamee ni nee na màggalee cant yi macha allah lu am solo waaye def naa ni sëñ Basel si ñëw léegi maanaam murit ak maanaam alhimma mooy yitte ay maanaam am ambition est-ce que ñun doy nañu ñu toog fi rek di màggal ak cant ak suñu wàccuwaay si njaboot gi lan la suñu wàccuwaay fii si dëkk en tant que communauté suñu contribution lan la fi waaw suñu jaamu yàlla nan la fi ñu mën a tëddee lan lañ fi mën a toogalee lislaam itam ndax lii sëñ Euh, Fahmi doon wax léegi am sëriñ bu nga xam naan amul morom tey nga ni yow si sëñ boobu nga jokk war na am maanaam ni si sëriñ mel euh, par rapport ak yenn sëriñ yi yow nan nga nan nga mel si si taalibe yi par rapport ak yenn taalibe yi li sëñ doon wax naan kët moom de maanaam ni mel si yoonte bi saa bi meluñu fi noonu waaw te naan ñun ni salla ni sëñ Tuubaa defoon defoon yonent bi noonu rek lañ ko war a def waaw te itam képp ko nga xam ne ànd naag sëñ Tuubaa nekk nga ko nga xam ne sa xel war naa dal sa xol war naa sedd sa yaakaar itam war naa dëgër waaw mais daanaka léegi bu fekkee ne xool nañ li ànd boobu ba léegi li may wax euh, bàyyil saan mi koy wax léegi ne famille lu bari am na lu nga xamee ni exposé ñu def ci première partie bi nga xam ni def na ko. seen liggéey la moo xam ni def nañ ko moog sëñ Cheikh Ablaye Dieye nga xam ne ni dem nañ fi ba moo daal di wër fi jaar jaari sëñ bi fi mu nekk yëpp ñu jaar koy ko ñëw teg loolu ne nekk na liggéey moom bu am solo la jamono yooyu nekkoon na quelque chose moom ni maanaam jamaan xama xamale sëñ Tuubaa ñoom seen wàll seen seen waar bàyyi nañ ko tegal ñu mais ñun suñu wàll est-ce que suñu njaboot war nañoo bàyyi mu raw waaw ànd boobu bi ñu koy def dañuy njëkk a wax nii gët sëñ bi ba mu ñu waxee mu maanaam mbooleem daayira yi nekk fii ci France euh, nañuy takk seen liggéey def ko benn say muy àddi yi nga xam ne am nañ ko ñu jébal sëñ bi loolu nag euh, defe naa ni ay at ñu koy def euh, jox si ab lim daaw ak daaw gi daana ko lu war a mat 45 mille euros jël nañ ko jox ko àddee màggal muy àddee daayira yi am na xëy na ñenn ñu nga xamee nii yi yëg nañ ko te dugguñu si wala ñu xam ne yëguñu ko woon ñu xam ne loolu nekk na loo xam ngi dox te itam bi ñu fi demee jox adde yi sëñ bi def le maanaam ñu soññ ñaanal ñu santaat daal di taxawaayu maanaam néew na si daayira bitim réew ñu ko taxawee ndax ndigal lu joxe ñu taxaw si taxaw bu am Pastef di delluwaat di wax ni adde yi ñu indi ko mu doon milliard te ànduñu. mu indiwoon ko mu nekk un euro moo ko gënal te ñu ànd dem sax ba ne bu fekkoon yoroon dara sax ngeen ànd la ma yor ma jox leen ko daal di fépp dem daayira ngeen ko yaatal te fu taalibe yi dem fu taalibe nekk ngeen fa taxalu daayira waaw sëñ bi moom lañ mujjee jox te am na suñu xëy na loolu nag déggewuñ ko noonu te ñun ñi nga xam ne fekke nañ ko tamit image audio yépp a ngi fii donc taalibe yi war nañ koo yaatal pour taalibe yi xamee ko noonu beneen bi dana bis bu nga xamee ni ñu ku taxawaloon ko muy euh, euh, bisub Sëñ Tuubaa mën nañ ko tuddi bisub de njëkk nañ ko def deux mille euh, deux mille neuf def nañ ko Lyon delluwaat def ko deux mille onze ñu defa ko Dijon maanaam mbooleem fédération yi dañuy dajaloo jàpp benn bis bu nga xamee ni bisub xasida lañ ko tuddee si ndigalu si njiital sëñ Fallou ak euh, sëñ euh, sëñ Xabaan ak sëñ sëñ Chérif Falilou sëñ Maamoor yónnee woon na fi sëñ Sidi Moxtaar ñu def bis boobu bi ñëwee ba toll si xool ni kët maanaam tool bi yaatu na te liggéey metti na te am na kër bi nga xamee nekk boobu nga xam ne mooy këru lislaam Cheikh Mourtada joxoon ko ñu am kër gi ñu ko waroon waroon ko marché yi boobu ba léegi ñi ngi nekk ñi ngi si nekk te matul ñu noonu ñaari at yi ba lu ñuy def lenn benn benn événement mu am jëm si fédération bi kër ko dañ dañ koo matal ba noppi. am na ay sas nag yoo xam ne jot nañ ko répartir def ko si fédération yi ba mbokk yi ñu si bari fédération yi bay nañ ko muy fédération est fédération ouest bi nord bi lañ joxoon ak Île-de-France centre bi ak fédération sud. ñun loolu bi nga xam ne am na defe naa ni li si ëpp daanaka matal nañ ko muy cent mille euros daanaka si yoo ni nekk na si. caisse fédération sud de Marseille bi bu am ni pour jënd kër deux cent cinquante mille euros fa nekk waaye li xamal ni fédération Île-de-France maanaam ñi ngi si woon yónnee woon nañ fi ay ndaw yu nga xamee ni kët ñoom ñoo nekkoon maanaam di saytu loolu di xamal ni képp ku nga xamee ni maanaam tàbbi ko si. loolu moom moo tax fi mu nekk nii amagul maanaam projet bu mag bu nga xam ne dugg na ci macha allah li xam ni nag loolu nga xamee ni mooy firndeel ànd bi ak ambition murid yi fi doon waxee toujours mooy ñu war a mën a dépassé maanaam cant war na nekk lu nga xam ne fi nekk nii roode na daal macha allah cant yi war na nekk lu nga xam ne nii roode na bu li ñu gën a am lu nga xamee ni loolu moom moo waral de sant culturels wala kër yi nga xam ne ni mooy jumaa yi walla këru lislaam yi nga xam ni war nañ koo am mooy euh, principe bu maanaam éducation jàngal xale yi jàngal xale yi ndax dañoo xool ne ñun murid yi maanaam fi nekk nii ni ko famille waxee sànq dafa mel ne euh, ànd ak sëñ Tuubaa bi li si ëpp ay wax lañ ko def jëf ji sore na lool ak li nga xam ne mooy ànd ak sëñ Tuubaa te itam maanaam dañoo nekk comité communauté bu nga nii dañoo war a nekk ñoom ay royukaay la ñu war a nekk saa su nekk waaye fi nekk nii boo gisee danaan xool xoolal turki wala naar yi ñi nga xam ne dañoo war a nekk royukaay yi tey booy xool daanaka amul dara lu nga xam def nañ fi mën a cee teg baaraam loolu xoolal naar yi xooleen marocain yi xooleen nangam di yéemu si yenn communauté yi te yàlla defal ñu lépp lu nga xamee nii war nañoo mën a mel wala ñu ñu raw loolu donc loolu moo tax ñu noonu danañ woote waat bi soññewaat saa su ne muy séminaire bu nga xamee ni jëwriñ yi waxtaan nañ si ne war nañoo tase lu nga xamee ni taalibe yi duñ si yàkkamti mu nekk un week-end ñu jàpp week-end 28 euh, mars incha allah 2016 ñu war a tase bu soo yàlla Lyon taalibe ñu ngi jéem a ñuy waxtaan si organisation yi ak lépp lu nga xamee ni war na si képp ku nga xamee ni am na ay xalaat yu rafet yu nga xam ni war na mën a gëm jëmale communauté bi kanam mag ñi nga xamee ni ñi ngi woon fi woon ak expérience bi ñu am ñu fixé waat suñu objectif xool fan lañ jëm tënkaat ko takkaat ko bu baax waxtaan si bi daal war a mën a dem ndax itam daanaka bu ñu waxee ba pare def màggal ak cant beneen action du stop loolu moom la ñuy mën a constater tristement que maanaam dañuy wax rek wax ju rafet daal si yéemu bu ñu yéemoo ba ci suñu njaboot yi war nañ jéem fexe ba ñu nekk non seulement ay murit wala bala baax yi murit sax ñu nekk jullit bala bala ñu wax suñu njaboot ñu nekki jullit bi ñu nekk jullit ba pare nekk murit ñu xamal leen kan mooy Sëñ Tuubaa loolu nag kenn mënu ko kenn kenn mënu koo def à notre place du naar bi ñu ko yóbbu ñu jàngal du turc bi du quartier bi du keneen ñun suñu wàll bopp ñun ñoo ko def liggéey boo dafa nekk lu nga xamee ne ñu ngi ñaan mbokk yi ñi nga xamee am nañ ci ay xalaat ak euh, muy sociologue ak muy éducateur muy philosophe ñi nga xamee ñu ngi fii ñu xoolaat bu baax saytuwaat loolu bu baax ndaxte bu ñu ko deful suñu njaboot gi dañ ñu rëcc am na lu nga xamee ni dem na ba noppi mi ñu koy wax mais loolu du échec du dara xamuñu woon xëy na mais day foo nekk ñu nga am nañ ci war a jàng pour mën a maanaam gën a gën a dem kanam loolu moo nekkoon lu nga xamee ni vraiment ñu ngi ko doon si mbokk taalibe yi di xamalaat ni euh, addiye ji nga xamee ni buñ koy bëgg a jébal sëñ Sidi Mokhtar déwén incha allah màggal gi ñu ngi ko jàpp 10 décembre 2016 incha allah. 2015 le 10 décembre taal bi nga xam ne màggal gi danañ fekk fekk mënuñ ko sóoraale ñu sóoraale ko macha allah loolu daal mu nekk lu nga xamee ni jàngale bi ak terbiye xale bi mooy seen seeni seen comportement li euh, ñu war ak seeni i waajur li ñu war ak seeni i moroom yi waajur li war ak seen i loolu nekk na loo am ni soxal na su ne yitte nañu ko mu nekk ay feebar yoo xam ne vraiment war nañ see taxaw euh, loolu moo nekkoon li nga xamee ni vraiment euh, ay kàddoom ni waroon ko delluwaat di ko fàttaliwaat beneen bi di xamal ni euh, daf hmm? waaw euh, ñoom euh, waa Nourou Mahady du ñu def lu dul di leen santaat bu baax ndax seen wax bariwul si maanaam liggéey bi te dem jëf ji macha allah dis na lool. di santaat sama mbokk jur yi nga xamee ni moom laa doon tàmbale ñoom laa fi àndal jógee si Marseille naar Narbonne ak Lyon muy sëñ Modou Seck nekk jëwriñu Marseille sëñ Aliou Guèye ak sëñ Idrissa Dia ak yeneen mbokk yi nga xam ni ànd na nañu ñoom lii mu nekk lu nga xamee ni maanaam ndigal la bu nga xamee ni sëñ Sidou Mokhtar da ko joxoon sëñ Cheikh Jëmu Fall pour mu maanaam euh, liggéeyaat Mbàkke Kajoor moderniser ko donc euh, sëñ Cheikh Jëmu dénk ko jëruñu Baye Fall ñu wax sëñ Babacar sëñ Babacar Baw mu nekk lu nga xamee dafa bëgg a def benn centre de formation d'agronomie Mbàkke Kajoor donc jëwriñu Baye Fall yor nañ ko ñu wax jëwriñ yi bu ñu dem yóbbaale ko si am na ay kër yu nga wax àndal pour jëwriñ mën koo mën a fàgguwaale macha allah am na si beneen bokk du nord suñu waaw macha allah nga xam ne am na message moo war a jàllale di siyaaraat mbokk taal bi yëpp di jégluwaat bu baax du ñaan si borom defal ñu nangu si liggéey bi defal ñu tawféex defal ñu tey sur ak saat daal maa ngi jégluwaat bu baax si kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala macha allah.